jaale ñu leen yàlla xare lañ ci àjjana yu gën a kawe yi te yàlla tamit may euh, njaboot gi xolu muñ euh, luñ fi njëkk a def mooy indi suñu njaal wante euh, wax tamit njaboot gi que mairie de Dakar lépp luy yàqu-yàqu yu fi amoon ci kër gi dinañ ci taxaw incha allah ak euh, wax leen tamit que mairie de Dakar dañu leen fas yéene jàppale leen gunge leen ci lu ñuy woy accompagnement ak soutien psychologique parce que lii dafa metti ba jéggi dayo bu ci des nag ma bëgg a ci occasion bi pour interpeller président Macky Sall wax ko ko dikk rek démb fii ci koñ gi amaat na beneen accident bu mel nii daanaka bonbonne de gaz bu ñu jënd ci benn bërëb dugal ko ci benn kër mu tëb bonbonne de gaz yi nag du ñu explosé bonbonne de gaz yi daanaka dañ ciy teg bec bi mu tëb su tëbee safara bi daal di euh, song nit ñi jàpp nit ñi commencé leen di lakk loolu xel mënu ko nangu te nopp mënu ko dégg bu ci njëkk mooy sàkku ci président Macky Sall parce que fii ci kër gi on n'a pas senti la protection civile comme ni ñu ko doon sentir parce que ñoom ñu ngi bàyyeekoo ci ministère de l'intérieur président Macky Sall mooy ilif ñuy sàkku ci président Macky Sall bu ci njëkk mooy bonbonne de gaz yu total di commercialiser na président Macky Sall joxe ndigal ndax ñu mën leen retirer du marché ba enquête bi jeex parce que nag mënuñu continuer di nangu ay doomu ndakaaru di jóg dem jënd seen gaz ànd ak xel bu dal dugg seen kër affaire bi daal di ñuroo leneen te Sénégal lu ñu sonal mooy masla masla bi dafa doy parce que dañuy masla ba ñuy bëgg a maasaale juróom-ñaari nit yu ñàkk seen bakken naam ndogalu yàlla la parce que ay jullit lañu wante amul benn dëkk bu respecté boppam ci àdduna fu ñu koy yemale ci ndogalu yàlla parce que yàlla bonul soxorul te iñaanul doomu aadama nag ci tëleem wala ci ñàkk responsabilité def ay njaaxumam dafa nar a assumer ay responsabilités moo tax ginnaaw bu ñu ñaanee président Macky Sall mu joxe ndigal ndax ñu mën a arrêter commercialisation bonbonne Total yi retirer leen ci marché bi ba enquête bi daal di joxe ay conclusions ñun waa mairie de Dakar dañu fas yéene jël ay avocat baaxe ko euh, njaboot bi bu fi fekk fii ci deqi tey Total ma bëgg a wax ci leer bonbonne de gaz yi seen tur ci nekk ñoom ñoo koy commercialiser. ñu taxaw fii ne amuñu ci responsabilité ñoom multinationale lañu lu fi xew fii biir Derklé loolu du xew Paris du xew fenn biir Paris kon nag gisuñu lu tax loolu du xew seen dëkk ñoom muy xew suñu dëkk duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg fu mbaxane doone benn dañ fa fas yéene dem ak ñoom te fuñ suñ suñ dem ak ñoom fii biir Sénégal ci justice mu àtte ñu dinañ fa dem ak ñoom te tamit France fu ñoom fu ñu fa bàyyeeku tamit dañ fa fas tamit dem ak ñoom fu mbaxane doone benn parce que responsabilité ci drame bu mel noonu dañ koy assumer loolu mooy dëgg ñoom ñu nekk di def des chiffres d'affaires ou des bénéfices de centaines de milliards d'euros lu mel ni kenn déggu leen kenn gisu leen kenn yëgu leen te ñu foog ni ni que dara dara du leen ci fekk dañuy nax seen bopp bu ci tegu tamit mooy ville de Dakar jël na engagement ak famille bu ñu fi fekk pour que ñeenti nit ñu nekk ci hôpitaux yi moo xam ku nekk Pikine ku nekk dalal jàmm ak ñeneen ñu nekk si teew ñu jokkoo ak directeur structure yi ak médecin yu fa nekk jéem a xool est-ce que ñooñu mën nañ leen évacuer euh, mairie de Dakar am na convention ak bu nekk Maroc pour ay évacuation te euh, suñ jàppee ñu ne mën nañ leen évacuer mais Maroc mënul leen fa faj daf leen noo yóbbu tamit feneen maa ngi interpeller des à présent le groupe Total je vous invite à assumer vos responsabilités parce que lu mel nii di ngeen ci dugal seen loxo ba mu mat sëkk parce que le drame certes am na wante wax naa leen ko accident mooy lu tubaab di way accident wante munoo am lu fi jot a xew à peine une semaine big encore démb lu mel noonu tamit xewaat ñuy toog di ko setaan di ko setaan donc loolu moo nekkoon kàddu yi mbokk yi ñu fi fekk nag di continuer di leen di ñaanal parce que yàlla rek leen mën a taxaw yàlla bu mën lépp